taxali taxaw xare madaniyatun ilaa wakaayin xaretillaa aw matiyatun wala tagan nakala waye moom saaro qital samaam juróom ñett laa waxtaan ak juróom ñeent wa saar sana ñett fukk aatan ci kaade allasina ñaaña kafaroo la dinañu ta ñaañañ makka wa saddoo tañuy sanni ñaam sabilillahi wuri diine yàlla ci gëm yàlla abdalla ama yàlla ahmaalam waay jëf seen de kéefar yi nga xam ne dañuy weddi ba noppi di aaye ku gëm yàlla yàlla yàq na lépp luñ defoon ci lu baax dañuy ganale kanaka léeg-léeg ñamat ñuy jokkal fokk dara la jot a am ci fay ca àllaaxira ndax ñàkk nañ sart ba sart ba moo di gëm de wala si ne ñaaña aamanoo gëm nañu te mooy lam saar waa mi doo dañ jëf saaliha di farata ak naafi ee waa aamanoo dañ gëm ci maam si la jëla ba sare waa Muhammad ci Muhammad lu gëm alquran bi ñu wàcc ci Muhammad woo ta moom alaa kuma aji dëggu min rabbim ci joxe borom seen ka fara far na mu anu wël seen sa yaati waay ñaaw te seen de ñooñu yàlla baal na seen bakkaar yi jiitoon de waa laa dama yee noonu baale um bitteel daali ka goog ne yàqal jëf ci xéebal ya ak farak bakkaar te ca gëm te am na la ci nañ ci saar si naka ñaaña gafara wet nañu ci tabama topp nañu al baati la seetaane waa na la ci nag naka ñaaña amuna gëm nañu ci tabama topp nañu ñoom alxaq la jël ñaa dañoo topp seetaane moo tax seen jëf yàqu ñii itam dañoo topp yàlla ak alquran moo tax yàlla faral leen seeni bàkkaar de min rabbihim ci joxe borom seen te saalika jam googu leen bidal yam di bu laaw lay bidal yàlla dinaa fi ñeen nit ñi am saalahum ay lépp seen de dana leen leeralal mbiri julli tam mbiri yéefar yëpp de fay saa raqi dum dem daje ngeen àll dina ñaane kafaroo wet nañu fatoo bari xaawi caw leen baal ya de su ngeen daje yéefar yi di jihaad da leen taw seeni jaasi ci seen dox ya de su sa bopp dox da lay deere ataa yi waa askan ku moom ba dem mokkal njëndeer bu ngeen leen raaya ba xam ne mokk nañ la ñoom yéefar yi ba ci doo dëgëri leen alabasaa ak njël ñi de ba nag mën ngeen a jàpp ay jar-jar ci ñoom gannaaw boo xam ne seen doole dem na rey nañ kenn yëpp te lu ñuy ragal xataram nekk ci ñoom jàpp leen leen nag def leen jaam bu ngeen leen jàppee jaam nag te imaam man man kenn ngeen xëyee nag xëyee ngor baa bi sa gannaaw jaam yi ngeen moom nag su ngeen yeboo bàyyil yàlla mooy bàyyi leen ñu dem te bañ leen laaj dara way maati daan dana ak njotoo benn ngeen jotoo ñoom ak njotoo de su leen neexee itam seen laaj yi nag njot ñu jot seen bopp de a topp baa bett leen alxarbu nañ xare alfaaraare ganaay seen de ba nga xam ne mboolem noonu nga xam ne ñu yëkkare aare yéen yëpp tëral nañ seen ganaay xeexatu ñëw yéen de saalika loolee wala wala saa saalika mbir mu naka noonu la de zalika loolu de moo di xàq ci ñoom de wala wala saa wala doon de sooboon na yàlla lan ko sore comme mu fayu minum ci ñoom ci lu xare rek soo gisee yàlla xam si jullit ñi ne nañ jihaad daf leen bëgg a may teraanga rek benn ñu am ci tey wala matériel yàlla dimbale leen ñu xam itam ñu dëggu ak ñu nga xam ne naa fekk lañ waaye yàlla mënoon naa fayul boppam ci lu jihaad de walakin lu fi nekk li yëpp lu wax ngeen namu nattu baabatum ñene seen di baabin ci ñene de soo gisee yàlla digle jihaad nattu yenn jaami ci yenn yi la de ku dee ci ñun dem aljanna ñoom ku dee ci ñoom dem safara de wala ci na ñaaño xaasaloo xare nañu ci sabilillahi ci yoonu yàlla wala ñu di la yàq ci yàlla amaaru may jëf seen de te yaa di yëm dana mu jubal leen way suur tamit yooyu doon baala hum bit seen de way xilum dana mu xartee na aljanna sa aljanna arrafa aljana ngeen jëlee nu mu ko lewum ñu leen mooy aljana ngeen leen jëlee de yaa ayyuha alladina amanu yéen jaa ngi gëmal Alxuraan in tansuru ngeen dimbale ngeen laa yàlla laa diine yàlla laa yonentab yàlla yansurkum dimbale leen yàlla ñu seen noonu de yéen ñi gëm yàlla dimbale leen yàlla yàlla dimbale yéen jaa ngi gëmal Alxuraan in tansuru ngeen dimbale ngeen laa yàlla laa diine yàlla laa yonentab yàlla yanam sookum dimbale leen yàlla ñu seen noonu de ee yéen ñi gëm yàlla dimbale leen yàlla yàlla dimbale leen de dimbale yàlla mooy dimbale diine ji dimbale yonent bi wayu sabbita sam saxal aqdamakum ay dëggu seen de ku dimbale yàlla yàlla dana la dimbale saxal say dëggu wala dina ñaaña kafaro wet nañu fatasan alkare lawum war na ci ñoom de amma xéefari ñoom dañuy xalaku rek waaw dala yàq na yàlla amaalu ay jëf seen de saalika googu de xaraku ak yàqu seen jëf te annahum ci sabab dina ko ñoom karihoo sib nañu ma am sallallahu alayhi wa sallam na ko yàlla gi alquran ndax lam lamboo ci toggeef waaw parce que yàq yàlla amaaroon jëf seen yéene afalam yasiru ndax dañoo doxul ci la rek ci suuf fayal suuf dañu seet kayfa kaan na kay nekk àqibatu lazina mu jëm ñaañe min xam ni way nekk lañ leen njëkk seen damara laahu xalak na yàlla aleen ci ñoom de am na ñu leen xéefal yi leen jëkkoon te yàlla xalak na leen de loolu dafa tekki de mooy yéen itam da ngeen di àlaku ci rek de wala kaafiri na ñeen wala di ñaan saada kem ak mujj seen de na ñooñu mujjewoon xéefal yi tey itam noonu lañ xala mujje de saalika boobu la dimb rek way gëm ak xarak ak way weddi te ana laa dina ko yàlla mawla la dina mooy aji dimbale ñaaña amaloo gëm nañu waanal kaafirina naka way weddi ñu ñoom laa mawla di aji dimbale lahum ñeeleen de jullit ñoo am nañ yàlla muy seen dimbal fuñ mën a nekk éefar nag ñoom xamuñ dimbal de xamuñ aji dimbale de ndax xamuñ yàlla de te seen yàlla ye mënuñoo dimbale kenn dina laa naka yàlla yi seen gën a mu xarfale dina ñooñu amaloo gëm nañu waa mi doon dañ jëf saalihaat yi farata ak naafile ganaat yi tool taj ni yee dana daw ñu taasi ay suuf seen naaru yoo xam ne yéen am wala si na ñaane kafaru la dinañu yetta ma taxoon ak danañu bànneexu ci àddina wa yaakuluna tañ lekk kama taakulu na kay lekk dana amul jibi kër de déefar yi fii ci àddina ñoom jibi kër yi rek ñoo yem de dara du seen yitte lu may seen biit ak seen fay naka nga xam ne bàyyi ma amul benn yitte lu may biit dama fayam de fi yitte woon bi dama làkkra de wa naaru safara ma kon sax waaye la lawum ñaa leen yàlla dafa bind bindéef yi fàkk na ci ay malaayika yi nga xam ne jaamu yàlla bu sell rek ak xam yàlla mooy seen liggéey mu sàkk saytaane yi xam ne yàq rek ay seen liggéey mu sàkk judikër yi xam ne seen banee xam bakkan rek ay seen yitte yitte ak pay rek mu sàkk gar yi nga xam ne fàdd rek ay seen liggéey mu sàkk doomu aadama nag mu nekk ci diggante bi doomu adama moom mën naa xeex ak bakkanam te di jaamu yàlla ni malaaka xam yàlla ni malaaka yi xam yàlla doomu adama joo xam ne def na loolu kooku réegal nañ ko ca malaaka ya te ñoom la bokk te moo gën sax malaaka ya doomu adama ju topp bànnee xam bakkanam da nga xam ne dara lu liggéeyam dara du soxlaam lu mooy biitam ak pëyam rek kooku mi ngi mel ni bàyyi ma la léegi de te moo gën a bon sax bàyyi ma yi doomu aadama ci topp pexe mu bon ak yàq ba mel ni seytaane dafay mujj nekk seytaane te kon moo gën a bon seytaane doomu aadama ju topp mer ak fadd foo ko gis rek ma ngay xeex kooku itam doo doomu aadama gar la te moo gën a bon gar yi rek doomu aadama ngi moom lu ne mën naa ne ci moom yàlla nga ko def ci diggante mbindeef yi su xaree bakkanam daal te di liggéey ci def bàyyi ma di liggéey ci def saytaane di liggéey ci def garde léegi malaaka la te moo gën malaaka moo tax xam ne ci doomu aadama ñu gën malaaka yi waaye itam su sag sànkee ci def malaaka ba ne woon ci moom ngir topp banneex bàyyi ma la te bon moo yées bàyyi ma yi de moo tax yàlla ne wulaay ko moom sarul bëreeti ñooy kenn ci mbindeef yi de doomu adama su yéesee moo yées yépp su baaxee itam moo gën lépp lu yàlla sàkk rek éefaru makka na ñoom mujj lañ nekk di bàyyi ma rek te ñoo yées bàyyi ma rek yàlla wax na ne ci weneen laa ne balum abalu nee ñoog bàyyi ma yeeyam te ñoo gën a xiis sax bàyyi ma rek war naaru safara makoon sax waaye la um ñeeleer moo tax safar la safar lañu mujj rek wakaayu bëri na min xale ci dëkk yéen boobu moom ashaddu moo gën a tax watan ci kattan min xale ci dëkk sa dëkk yi baax a xarajat ko jëri nañ la xaaral naa xaaral na leen de waa Makka buñ la jaaxal ñoom ñu la génne Makka yàgg naa xaaral xeet boo xam ne ñoo leen ëpp doole de konoon ñoom itam dañoo ba pare de balaa naa si la te jël aji dimbale la moom ñaareel afa man kaana ak a nekk na mu war a béy na suñ jiw laay ñu rab yi tukkee boromam xaman fi na naka rafetal karafetale na loo ñeen ko su amali ñaawal bi moom moo ko xam ne lépp lu muy jëf da ko teg ci lay wu dëgër te mooy ñi gëm yàlla ñi doon ñoom ñi nga xam ne seen bakkan la rafetal seen i jëf rek ñi di ko jëf ñu roowuñ de wata ba watañ topp awaawam bànnee si bakkan seen de ñu topp seen bànnee si bakkan di ku curoon ngar gene asamaan yàlla ji ñuy jaamu joraaw bànnee ak bakkan de asalul jannati nga la wax janna de ci waaw way de day def na daal mu soxla way ragal yàlla um wax ne léegi yeneen bi yoon yooyu dikk si joxe taal yeneen bi yoon yaa ngoo aljanna ñi nga xam ne moom lañ leen dig yéen ñi gëm yàlla te topp yàlla yaa ñu nekk la ci moom anhaarun ay yan min maa ngi tukkee ci ndox xëy na ah si nu mu dugg waa ji soppeeku rek aljana am na yenn ndox ndox yoo xam ne ñu ngay ball ci ndox moo xam ne wut na ndoxam àddina bi di génne ciy bët nga xam ne bu yàggee soppeeku xodox moom moom waaw ca suufi aljana sa lay ballee ma ngay ànd ak ñooñu aljana fuñ toll rek ñu ngi ànd ak seen weer tolloog ñoom waan xaarum ak yoon min labanin tukkee ci soow lam yataghayyar moom soppeeku taamu cafam aljana xam na yooni meew yoo xam ne ñu ngay daw rek ànd ak ñooñu aljana ya buñ toll mu nga tolloog ñoom bu sax bi daaj na am rek doxee ba daal di xeex daal di tegu ci sa loxo te meew moom a wut naa meew maa dina mi nga xam ne ci xenaar rek la génnee xam ne soo ko fanaanalee mu daal di ko dox waa nga aroon ak yoon min xaalis su ko ci sangara la sëtin su gaa ji neex li taari bi na ñëw way naa ñëw ak yoonam sangara boo ko xuma seen sangara si àddina si xam ne moom dafa wex soo sa moom dafa neex te ña koy naan wuti naa sangara si àddina moom lu wex la lu siibu la dafa ko naan tagoo samkal banati mu yeex la xaañaan ba muy métti waa nga aroon ak yoon dinaa fa ni su ko ci lem mu sa fan bu li buñ sellal ak yoon moo xam ne ci yoon neew lay bàyyi ci lem lay bàyyi ko yoonam lem moo xam ne te tuuti aljanna rek lay balee bokkut ak lem ak àddina gi nga xam ne ma nga ca kanaga te ci jiitam waaw yamba rek la jógee moom itam su yàggee daal di soppeeku kodot boo ko lem moom ma koy bale ca aljanna yeneen ci yoon yooyu ñoom la ñuy aljanna yaawante bu soqal dajee ndox ndox ma gën a neex daal di teew ci sa kanam bu dee meew nooru bu dee sangara nooru moo tax ñaar ama sangara si àddina fii yonent ne ko naan ci àddina doo ko naan ci àllaaxira ak yoon moo xam nag ne moom lem la de wala wum ñeexam na leen ci aji àjjana biñ kulli samaraat yi yëpp ñu xeeti ma ñëw de wa ma xulet na mbaar mi rabbi mu duggee borom seet ba noppi yàlla baal leen seen bakkaar de àjjana ngoo xéewal du sa xel daj du bët mës ba gis du nopp mës ba dégg du mës ba toq ci xolam doomu aadama ci lekk ci naan ma nga ca àjjana de la raw loolu yëpp nag mooy mbaam yàlla ak ngëdëmam mu gëdëm leen ngëdëm loo xam ne dootu leen mere mu këri ngëdëmal aljana ngëdëmal yàlla na moo tax aljana bokki dëkk kër googu kamul wa naka ka moom xaalis na aji biir la mu fi naari ci safaraam bokki ci xéewal googu jidoo naa ko nga xam ne moom mu nga biir ca safaraam safara di ko lakk bu dee bëccëg bu suqoota na la def leen maa ndox am yi ma mu di aji ñibbi nga xam ne ñoom waaw la mbugal ma métti métti dañuy jàmbat naar suñ laajee ndox ndoxam jigg lañ leen di jox rek ndoxam jigg moo xam ne yes wi lu joor bi sa saraabu yàlla na ne buñ ko bu ko tànkee rek ba jubalee ko xarkanamam xarkanam ba ñoree ku ne ja bëpp ngi tàngaay ba su ko guuxee mu buddi dëgg yee su ko wannee mu buddi xalasam de te dana ko naan rek ngir métti mar wa de ba xattaan xam dagg am haa waaye ñetteem suñ ko naanee mu buddi seen xalasee joor ci suuf de wa minhum aji nekk rek yi bari man yes tamit moo ko dana mu déglu ilayka jëm ci yow xanaa sax yi doon déglu yoon ci xutba juma ataay sax rajo ba dem génn nañ ñaan di ko tukki fi yow xaar nañu wax di la ci nañ ñaan ñaan foofu leen ma joxe seen xam-xam ñu ngay laaj saaba yi naa leen waaw maa nga xaala lu mu wax aani san sànq moo sànq lu Muhammad waxati déglu wuñ ko woon ca wax bu xutba te wéy nag ñu yëy ji nag naa waaw lu mu wax sax wulaay ka ñëwee de gaay da ci nañ ñoo di ñaan xabaar daaw liñ kañ la yàlla ala xulubi mu ci xol seen de ba taboo tañ topp awaawam bànn si bakkan seen de wala ñu ne waaye ñaaña iñ ta daw jub nañu saa daw laaw dañ ne yàlla wu dañ jub waa taawam jox na leen jox na mu leen taqwaawam ragal seen yàlla faal yeen suroona ndax de faal yeen suroona yéen ñu muñu liku ila saaba nga rebe penc antaat yow mu di gërëm leen de keesi yëguñ lu may pencam yàlla rek ndax ta tan ci bette te pencam yàlla fay dikk ci waxtu bette fakat jaa waaye dikk na asraata ay mandarga am de pencam yàlla kenn du xam kañ muy taxaw waaye daal mandargay pencam yàlla moom feeñ na ba noppi rek ndax nekkoon na ci mandargay pencam yàlla ci téere yi jëkk ya yónnee ku yónent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ndax mooy mujj ak yónent yi suñ ko yónnee rek ñu xam ne àddina jege naa jeex nekk na ci mandargay sukki ci àddina pateeku weer wi sax pateeku na ba noppi ak saxat saxat bi ñëw na yooyu yëpp mandargay sukki ci àddina la de moo tax xamuñ kañ lay tukki waaye daal li wër mooy jege na de addina juróom-ñaari fan la muy juróom-ñaari junne at way na yow ma ne dara ñu def kaal bi tamit ma taw doom juróom-ñaari junni ci at la ñu rëddaloon àddina diggante Adama ak Nooyin junni at la diggante Nuux ak Ibrahima junni at la diggante Ibrahima ak Muusa ñaari junni at la diggante Muusa ak Iisa junni at la diggante Iisa ak yonent juróomi téeméeri at la ak juróom benn fukk wala ñu ne juróom benn téeméer lu mën a am daal junni yëpp juróom ñaareel ba junni yëpp juróom benneel ba ci la yonent juddu jot ca ay téeméer te bi yonent ñëwee léegi ba mu demee léegi junni at ak ñetti téeméer ak juróom ñett fukk ak juróom benn jiraat war na la ni ñaari junni yi moom jeex na ci ci tegu am sabab rek la yam xamut dayoom waaye du bari rek gis na ne yonent sallallahu alayhi wa sallam kañ la pencam yàlla taxaw rek mu ne ko loo ko pareel mu ne ko du jëf yu bari de waaye daal bëgg naa la bëgg naa ba Abubakar bëgg naa Omar mu ne ko yow yaa ngi nga bëgg yéenay dëkk jaam yàlla rek te ko pencam yàlla kii laaj ki muy laaj gënu ko koo xam kenn xamu kañ la waaye mën naa laa jox mandargay rek bés boo xamee ne jëbeer jub na sangam mooy taara bu judee boo amee sa taara judee moom doom xam nga jub na sangam ndax yonent ba Mariyatu watine Ibrahim doomam daf ne anfaqa wala duha ne doomam gorel na ko loolu liñ doon wala ne ay pecc dana bëri ba saaba yi am ay jàmm def cee taara ba jub cee doom loolu am na ba noppi mu ne bés bu ñu wéedee nit mi jëm ci ku ko xelloo mu ñu ndikul pencam yàlla loolu am na réew jullit yépp bu ci nekk am na àttekat boo xam ne du jullit ñi doon tànn dañu tànn keneen rek mu ne bés boo gisee bis ci nii nga xam ne ay xàmmkat lañ ñii tuddlante ay taar waaye pencam yàlla jege na rek loolu itam am na bu defee jaase yi ngi taax yi na mu guddee dañu doon tànn ca jamono jooje ñoom moom taax yooyu léegi de su fi de mandarga yu mag yi nag mooy Maariyu ak Isa ak yaa jooja maa jooja ak dajaal ak jant bi sank bàyyi ko ci sow bi yooyu ñoom benn bu ci xeeñ rek sooy wax xam ne soppe bu mag ñëw na àdduna jaana mu ne itam xeet yi xeet yépp njéeréer lañ ci njëkk a ñàkk su njéeréer amatu ci àddina naga cee topp su nag yi fëree ba xam ne nag amatu xeet yi ci def yépp nag dañuy mel ni caq bu dagg caq bu wëñ nga dagg ma ngi toog na tere solo di rot butt butt butt noonu la xeet yëpp itam solo ba jeex ba keneen yàlla ne faqat gaa yi kina asraatu a mandargaay pencam yàlla de pencam yàlla kenn xamul kañ mu mu ne waaye ay mandargaam feeñ na de fa amee dawum ana fan tukke ana fa amee dawum ana fan tukke ñaar leen di jaa adum ba dikkale leen dikraawum ak waat leen ana lu leen lu leen fa amee dawum naka naka jariñee leen jaa isa isa jaa adum ba dikkale leen mandargay dikraawum ak waat leen naka ñuy def ba jariñu nag ñoom yéefar yi te waat nañ leen wax leen pencam yàlla de walam xamal yow Muhammad maanaam saxal ci xam ne xam na loolu mi ngi mel ni ittaqilaa ñooy yoon am na woon na ko di di leen jub laa ilaha déet bu koy jaam ci dëgg itam dara yàlla de yow yonent bi yow xamal ne waruñoo jaamu kenn mooy yàlla de xam-xam bi njëriñ ngoo wastaxfir barul itam di ko ci bàkkaat la walil mu'mina barul ñeer way gëm ñu góor wala muy naa de way gëm ñu jigéen de digal na ko na mat dana mot li ñeneen digal na ko na mat mooy na xam ne kenn yowat ak jaamu lu mooy yàlla bu xamee loolu mat na sëkk jaam bu xam ne waruloo jaamu lu mooy yàlla rek jaam bu matangoo te sax ci def lu baax nag di balu yàlla say bàkkaar yonent na ne danaa balu yàlla ci des téeméeri yoon ci beneen riwaaya juróom-ñaar fukki yoon yonent na xamul bàkkaar suy balu balu gën xanaa mooy bàkkaatam su yaar de def moom lu baax ak lu gën moom lu gën la la war a def su defee lu baax la moom dafay balu yàlla rek ñun bu ñu defee lu baax rek daf nañ góor a yonent moom war na def lu baax rek am ca la gën la war a def su defee lu baax rek moom dafay balu yàlla loolooy bakkaatam def balul itam ñu gëm ñu góoral ñu gëm ñu jigéen wallaahu yàlla yàlla mu gën a mu xam mu taqallabakum ak soppeeku seen wa maslaakum ak soxwaay seen rek yàlla xam na soppeeku jaam bi ba mu ne ci ci gën baayam ak sax waayam jarul moom ndeyam xam na sa fekk waayam jaam bi ci bëccëgam ak taxawaayam te guddi ba muy nelaw de xam naa soppeekuwaayam jaam bi mu ne jaadu naa ak taxawaayam ca bàmmeelam de wala soppeekuwaayam jaadi na taxawaayam jaal jana gis bu jaam di mën a ne rek yàlla xam na ko rek àndaale jàngoo jiwét jàngoo képp koo àndat képp kuy sa xarit kuy sa soppe kuy sa jage ñaare lu muy teeru teeru sa mbit dana moos waxtu yum la fatte waade am nga nag àndaale boo xam ne moom du la fàtte bukk du la fàtte ba ngay dund du la fàtte boo deexee du la fàtte ba nga nee ci nit ña du la fàtte ba nga nekkee yow rek du la fàtte ba ngay xeewoo du la fàtte ba ngay nelaw du la fàtte bi ngay dund du la fàtte boo deexee du la fàtte ba nga dëgëree du la fàtte ba nga neewee doole kooku mooy yàlla amul benn jëndeeku buy wéy yàlla fàtte la ca du la fàtte woon rek foofu ngay yem amul benn jéego booy seqi fekk yàlla nga la fàtte ba amoon doo wéy ci nga xamee nag ne xarit yëpp daañu la fàtte ci lenn jamono bii xarit moom du la fàtte ci wenn waxtu kooku jar na di ko fàttali ci yenn temps yi moo tax mu ne waxal laa ilaaha illallaah muhammadur rasuulullaah wa yaquulu dana wax la ci ne ñaa ngeen aamanu gëm nañu daw laa nu sirat du tere wa sa leef suurat nu saar buñ digle jaar ba xarit ba nga ñëwee ba yonent na yàlla yóor na ñooñ baagal ne leen def leen leen neex baal naa leen ñii ñëpp lañ doon mébét ak laay ji wàcc te waral jihaad ndax ñu fekke ko ndax ñu am lu mel ni la nga xam ne moom la ñooñ Badar amoon ñoom ñëpp dañ doon mébét laay ji wàcc digle jihaad bay daa woon si leen ñoom wasalee da dooletul saar mu kamat nu di wañ xarañee ba tukkira tuddee fi ak ñoom xitaalu xare raay sa ñu sàngal la si na ñaaño si xoloo bi maa ji nekk la ci xotteen maradun sikk maradun dooli pasteur maradun a naafëq yan ku nañuy seet yéen ko jëm ci yow nasaral max yi jëm seet ak kum xamal ale ci moom yéen moo di ngir wax dafa dee rek ñii wax naa yàlla na xare ñëw yàlla na xare ñëw su laaya wàccee nag ne jóg leen xare ji nga gis ñii xoolante nag ku ci nekk nga bukki bët nag siit mel nii waaye koo xam ne wax dafa dee wàcc ci moom nu muy bukkee bët fa awlaa gën jaay lewum ñee leer daa fi mooy topp wa xawl na wax maaroofu ngir ñu xam ne fekk lu gënoon a xëy mooy ñu topp ci yonent bi rek te wax lu rafet mooy nangu nañ lu yàlla digle këf yonent fay sa sama dem doomu na la murum bi dem xare ma wala sa dako doon te dëgg loon nañu laa la la kaana kon tey mu nekk xare de di gën la um ñaa leen de su yàlla dogoo ci waral xare waaw ñu dëggal la la nga xam ne moom lañ waxante woon ak yàlla loolu moo gënoon ci ñoom de faala fi gëm ndax dina yéen in tawalee gëm jëm dëgg ngeen walis gëm an ko si doomu ngeen yàqal si la da ci suuf watu xatteewate ngeen dog araama su ay jege ñaari seer yéen naa fekk nag ngeen dëddee bañ a gëm yi rek ngeen di liggéey def la la xéefar yi daa def ci jaay yeetu rek di yàq suuf si ak dog ak bokk walaay dañu la gaay la ci nañoo di ñaan laa anam laa fari na leen nguur ba yërmandeel fa asam moom tam sax loo leen waa amaa tam seen maxaal absaaram ay bët seen de afalaay ta dabbaroona lu tere ñu settantal alquran alquran ma lu tere ñu settantal alquran boo ñu xam ne dëgg la de am araab ku loolu ndax aji nekk la ci xol seen ak faaluha ay xombam ndax seeni xol xomb yee ko tëj moo ca nekk ba tey tijjee koogu gone ñëwoon nañ jëb en mbooloo ñëwoon nañ jëblu si benn xale lañ ca ba yéen si jàngee laa ji xale ba ne ak faaluha ata yoo fi xolaa ne xomb yaa nga ca ba yàlla maye tawfiq dégg naa war ne dañu ma di màggal gone googa réew bi réew ma nga xam ne fa la dëkkoon ma xol ko muy seen nguur rek nga xol bi ngi ci loxol yàlla xol bu nekk mu ngi ci diggante ñaari baaraam yàlla moo tax yonent daa bari ñaan yow yàlla mi soppandi ko ci xol yàlla nga saxal sama xol ci gëm yàlla xol ñaari bunt la am fii mi ngi jubloo bakkan bi nga xam ne bakkan bi mën na koo sant lu ko neex benn bi mu nga jubloo téye yàlla wa waaye dafa am xol muñ ko tëjee te ci jiwuñ ko dafay tëju su fekkee yàlla bëgg na nag jaam bi mu tijji xol mooma nag waaw su ko defee xol bi jox ko péeb yàlla ba rek moo tax yàlla ne settantal leen alquran ji la xam ne dëgg la ndax da seeni xol dañ ko tijjeegut in na la si naka ñaange rek a doo murtat nañu alaat baari ci gannaaw seen min baari ma tabayyana gannaaw mu bidee lawum ñee leen alu daam jub seytaanu iblis da wala rafetal na mu lawum ñee leen seen jëm wa am laa dem rafetal lawum ñee leen wa am laa dem réeral lawum ci ñoom de seytaanu leen rafetal seen jëf yu ban ya te seytaane leen réeral leen yàlla mooy yónni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy woote jëm ci njub moomu ci njub dara su moomoon dara ci njub bon kenn du réer mooy ayabal seytaane muy réeral nit ñi moomu ci réer dara su moomoon ci réer dara bon kenn du jub waaye yonent dafay tegtal yàlla mooy bind njub saytaane it dafay rafetal waaye yàlla bi yàlla mën a bind ci xolab jaam bi réer rek zalika boobu la yore daan moom ci naka ñoom xaaloo wax nañu ne dina si ñoom ñaari kër yooyu gis nañu maanaam sallallahu alayhi wa sallam naka yàlla dana teew ko xam ne na topp leen ci baax bi lamri ci leen di mbir léegi daal ñun ñu ngi ànd ak yéen daañu dimbalante yéen nag ci noonu ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam naa fekk yéen lañ daa wax ak yéen yëpp a réer yéen jigéen ñoom ca suuf wallaahu yàlla yàlla mu dana mu xam asaaram ay boot seen de ba kay fa di ndik seen i tawfaru isa tawfaru ba faat na leen al malaayika bu malaayika ya yàlla ribona danañu dóoru dóoru ay kanam seen waat baarawum ak i gannaaw seen wala waat baarawum ak i dubur seen boole lañ di ñuul dalika woole fatin bi annahum ci saw si sa kañoom ci tabama topp nañu ma satlaa la merloona yàlla wa kariha tañ jibrit waa naro gëne moom ne fa abata saax yàlla amaalum ay jëf seen am bayit asiba dafa jott àlla si na ñoane si xoloo bi ma aji nak la ci xol seen maralum am doo doo di pëstéew an nakam bi dañ nit lan yox rajalaaw génn ci yàlla am xaanam ay mbañal seen ci yéen bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam dana ko génne def wala na saa ak sooba nanu la aree naa kawam kon tey mu xamal la leen ne su neexoon yàlla mu ne leen diw ak diw ak diw ak diw ak diw ak diw naa fekk lañ wala araf dawum waaye xam ngaa xam leen di siméwum ci mën la deseene waaye nag yàlla sàkkam leen mën la ñoom naa fekk waaw nga daga leen xam ci seen mandarga yooyu wala taarif annahum wala da nga xam leen fi laa ñu xawli ci rafet la wax de da nga leen xam suñu wax waaw suñu wax ci yow waaw nga xam ne rek ñi ay naafeq lañ de ñooy seen meloom mooy di bonal jullit ña seen wax yëpp mooy di bonal jullit ña duñ gis duñ seet mukk lu rafet ci jullit ña wallaahi yàlla yàlla mu dana mu xam amalakum ay jëf leen de wala nam lu wax nakum wallaahi dana natt leen xataa naa la man xam alamu jaay dina way jiyaat ni nit kum ci wa saabi naa way muñ rek wala nam lu wax dana nattu axbaarakum ay solo seen de ba xam kuy topp yonent bi ak kuy may digalam de inna alladina naka ñaañu kafaroo wedd nañu wa saddoo tañ kat ñaan tam di laa wala diine yàlla wa saaqoo tañ hu tara sobe yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam min baadi maa tabayyana gannaaw bu bidee lawum leen alhu daa yoon jub dañ yàgg loolu war ñu laa yàlla tayam dara de ba tey li ko xam ne moo yàq amaalawum ay jëf amaalawum ay jëf seen de yaa yoon dina am ñoo kooku ko waral wàcc na ci ñun jàppoon ca ca Badar wala xore wala ci nambee yaa yi wala ñoom ñëpp sax yaa yi wala dina am yéen gaañ ñu wax ko atem laa topp leen yàlla waa atem ak ngeen topp rasul yi nañu ko de wala tusbilu leen yàq amalakum ay jëf seen inna la seen naka ñaani kafaroo la dinañu wasa doo tañ sax ñu ñaan sabilillah wala diine yàlla suma maatoo topp ñu dee woom dañoom ku faar way wet lañu fal yaqra laaw baati yàlla la ñaan leen de wala tahinu bu leen doodi aw tadoo ci ngeen di waxte ila sal mi jëm ci mat waa dum yéen laa law na yéen di way nat wala yàlla maakum añu nak la ànd ak yéen wala ñett rek mu wàññi ci bu leen amaara may jëf seen yiw de dina ma laa yaa naka dunda baa dina bi de daa yem mu xola wala xaw na fa way doominoo gëm gëm ngeen war a taxaw tayam wayal yàlla yow ci kum tam jox leen jox kum yore jëf seen de wala yasal kum laaj ci bu leen amaara kum ay jëf seen yàlla amaara kum ay jëf seen de leen laaj dana alal yëpp asaka rek lay laaj ci farataal in yasal kum waa leen laaj na mu leen alal ya fa yow ci kum tam joxal ak laaj tax xaloo ngeen naaj wala fa ñettam génne ab xaanak ma ay mbañal seen diine de kon ci gëm yàlla rek jëbale sa alal yëpp dootoo am dara kon ngeen bañ ci nañu islam rek en tout yéen xaaw laa yéen jëlee bu naaw na def naa leen di tum si xool na ngeen dundale di tabi laa ci yow yàlla ba bis kum aji nekk la ci ñenn seen man yàqalu ko dara mu may ba man yàqal ko nay na mu te it maa yàqalu na ko dara mu may am na yooyu war a boppam sax waaw jaaxal mu nayam ci moom lay wàcc rek wallaahu yàlla alxadim moom lay aji doylu wali seeri sadax waa tum yéen alfuqaraa yooyu way xaaji jëm ci yàlla de way te tawallaw dem dëgg ngeen yastabdil mu wax xawul aw bi xaarakum ji di génne su ma laajee ko nga topp na ñu am xaarakum ji jam seen ñoom daañu nangoo topp yàlla de